allah ñëw si actualité soo xoolee eh, yeesu doomu ndey Sadio Mané temps yëpp moom moo bës bi quoi parce que eh, ah, dafa blessé. waaw mais comme nit ah, comme jour comme toujours comme toujours Zidane blessé na fi à la veille de la coupe du monde 2002 xam nga euh, na fi euh, kii coupe du monde. Euh, beaucoup de joueurs même euh, actuellement sont blessés ay Diogo Jota dañoo blessé Ngolo Kanté Pogba et cetera joueurs yu bëri dañoo blessé parce que dafa tombé période boo xamante ne y a l'accumulation des matchs championnat Ligue des champions coupe te nit tamit nit du machine nit du weñ nem oto yi ñooy daw ba ci yàgg cardan ba dam saako nu mag nit donc Sadio Mané tey yaakaar naa ne c'est un c'est un lion ku xool tey tristesse bi population sénégalaise euh, àndal nga xam ne Sadio fi ko yi teg yaakaar naa ci l'histoire du football mosuñu fa teg benn jour. parce que euh, lim leen won la lim leen ji la lim leen jox la donc te li ñu koy souhaiter euh, prompt rétablissement di wax ne ko mu ñëw le plus rapidement possible. xam ne population sénégalais bi yëpp ñu ngi ci ginnaaw. ñëpp a ngi koy ñaan mais coupe du monde bi bon loolu nag man xaw ma dara. man le su fekkee Sadio ya du see coupe ñu jàpp ne ndogal yàlla la parce que Sadio Mané moo ñu jox euh, moo ñu jox coupe d'Afrique yaa ngi dégg te tey jii Sadio Mané tey dem na contre Cap Vert yéen fàtte euh, commotion xaw ma cérébrale boobu mu amoon mais bi mu bi mu gaañoo gars yi wan ne ko dañoo war a defal dañoo protocole dañoo war a suivre protocole bi mais Sadio Mané il a risque avait sa vie ne dafay football projet quart de finale bi par la force te loolu Liverpool ànd ci woon et il l'avait fait pour le Sénégal donc yaakaar naa ne tey jii mu ñëw euh, la ñuy ñaan. mais bu ñëwul euh, on on ira supporter xam ne le Sénégal euh, et euh, voilà Sénégal moo sut lépp mais Sadio Mané comme ni ñuy wax moteuru Sénégal la moteur nag boo ko amee boo ko boo ko perte day métti mais li ñuy ñaan rek mooy yàlla na ko yàlla wéral. ñu Sadio Mané Sadio Mané. non moom àgguñu fa. foofu àgguñu fa. mais équipe nationale sans Sadio Mané. non ñaanuñu ñaanuñu yàlla loolu. ñun ñaan nañ yàlla euh, peut-être dina dina dina dina tardé ay match je sais pas loolu ñi ko jege ak euh, fédération nañ ci wax mais équipe nationale sans sans Sadio Mané bon euh, dina am lu muy wàññi mais ça reste le Sénégal yaakaar naa ne dañuy boole xol yi ànd xàccandoo dóorandoo xam ne ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor xam ne football tey dafa am impact boo xamante ne am na ko ci vie sénégalais ndax boo xoolee réseau yi. xam ne tey football fi ko Sénégal yi teg xam Sadio Mané fi ñëpp bëgg nañ Sadio maane ànd ak ñun coupe du monde donc nag li ñuy def mooy ñaan ñun duñu ay spécialiste duñ staffam duñu ay supporter lañ dañuy toog di déglu communauté euh, communi euh, communiqué yi wàcc jëmee ci Bayern jëmee ci fédération jëmee ci ay agents lu ñoom lu ñu informé ñun ñëpp ñu àndandoo ci rek jàpp lool. voilà Mame Balla sa diggante Sadio Mané lan la. sama digganteeg Sadio Euh, comme diggante Sénégal yëpp ak kii la am nañu yaakaar ne man euh, euh, jàpp ne man Sadio Mané c'est mon ami mais am nañu jàpp ne ay ami intime lañ jëndee Sadio Mané je l'ai connu à travers les réseaux mu nekk nit koo xamante ne tey. ah comme ni ma ni ma mel ci moom rek la Sénégal yëpp mel ci moom noonu lañ ko bëggee donc nit la koo xamante ne sama ko bëgg te yàlla tax moom tamit mu am affection boobu ci man di ma ko wan yaakaar naa ne loolu relation boobu lañ am. Euh, voilà quoi ma ma bëgg ko après munoon football sama équipe léegi nekkatu sama équipe mais garaawul actuellement on gère quoi. Euh, léegi <laughs> waaw damay dem pour um Real <laughs> xam nga Real li ma meloon ni ma euh, amee jamono je vais le dire amee jamono ñun suñ koñ bëggoon làmb mais man daaw ma supporté Balla mais Balla dafa ma solo Balla Gaye ma sonaloon xam nga man bu indi Balla daan ko bu ma indi Balla Gaye daan ko xam nga euh, ba mujj gi may leen léegi comme man sonn naa léegi bàyyi leen ma fasal Balla Gaye mujj gi Balla Gaye noonu laa ko mujjee ma ne léegi moom moom laa fasal dootuma rey ni ma noonu nag laa mel léegi ci Real indi naa ngemm naa Liverpool 2018 mu gagné ko ma ngemm Liverpool 2022 mu gagné ko xam nga euh, tey jii ma war a dajewaat ak moom ma ñàkk jom dama koy contrer dama koy faral. Real Madrid laa faral mu neex nit ñi mu naqari nit ñi par la force doole mbaam.